waaw taxawaayu Diomaye fay man foofu damay interpeller rek li gën a rafet ci démocratie Sénégal mooy ñu bàyyi Diomaye mu génn. li gën a waaw mooy mooy ñu bàyyi Diomaye mu génn su ko defee candidat yëpp yem ñu dem élection sénégalais yi mën a def seen soit mën a diglu Diomaye bu baax mën a diglu keneen ki ñu bëgg fal ñu fal ko. fekkente ne nag dafa continuer ci logique ba mu nekkoon moom bàyyi jomaay ci kaso bi tamit jàpp naa ne amul lenn lu muy wàññi jomaay fay parce que ku ne tekk ba am parrainage ku nekk ci kaso bi ne tekk am parrainage ne tekk nekku candidat boo nee tekk di nga gañe waaw dafa am góor gu am solo goo xam ne ci magi sëñ baara yi la bokk takk naa ko ay yooni yooni yoon lu mu ñaan yàlla da koy def waaw lu mu ñaan yàlla da koy def na mu ko ñaane bi ma génnee ci kaso bi ma toog toog toog ba yàgg ma ne man daal xaaral ma woo bàyyi diw wax ko ne ko mu ñaanal Ousmane Sonko mu génn kaso parce que daal jàpp naa ne man du ngor sax ma toog fii nekk ci biti Sonko nekkut këram ba noppi maanaam jéewuma ci menn pexe xaaral ma ñaa ma woo ma fexe ba gis ba jot ko ne ko waaw sëriñ bi mu ne ma waaw ma ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma Ousmane Sonko mu génn kaso tam nekk al an léegi nag maanaam ci loo xam ne ni nekkut luy taxawaalu day day gaaw te bett ñëpp daal di génn mu ne ma sëñ Baara de loolu nga ma ñaanloo du ma ko ñaan waaw yaakaar naa sax nettali naa ko Ousmane Sonko yónnee yóbbante naa ko nit pour mu waxal ma ko Ousmane Sonko ne ko waxal ma ko loolu mu ne ma ne ko du ma ko ñaan ma ne ko lu tax doo ko ñaan mu ne ma saa yu ma toogee dem bay toog pour ne Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla génnee kaso bi ba dem ba koy bëgg ñaan daal day mel ne daa am lu naan ma bu ko ñaan waaw ma ne ko lu tax loolu mu ne ma damaa jàpp ne kaso bi dafa gën ci moom ndax Sonko dafa toll foo xam ne góor gee ma ko wax de su ma tuddoon turam Touba gépp ko xam ndax kilifa li ma xam ci moom ba koy woo ñëpp xam nañ ko waaye bëggut loolu <coughs> mu ne ma Sonko dafa toll foo xam ne ab liggéeyam menn moom moo mën a juum yàqu ko waaw menn moom rek moo ko mën a yàq Macky Sall ak li mu xam lépp ak mu am lépp bu ko boole woon di jéem a yàq li Sonko def nii maanaam mënuñu ko Sonko rek moo mën a def ab erreur boppam maanaam ni ñi ne cam daal koy bàyyi mu ne bu fekkee nag mbir dafa dem ba nga xam ne defar nga ko ba nga xam ne yow dong yaa ko mën a yàq yàlla dem yóbbu la foo xam ne moom doo ko fa mën a yàq yow yow boo ko yàq sax yow dootoo ko mën a yàq mu ne foofaay gën ci yow dégg nga wax bi par exemple rek maanaam bu fekkoon Sonko moom def erreur communication la mën a def ñu ne ah tey kat Sonko wax na lu ëpp man génn naa ci moom dax li mu wax wala ñu ne màggalu Tuubaa kat sëñ ba daa dem nangam nangam wala daa dem Tiwaawan wax fa nangam wala diw da koo seet si woon mu def ko nangam nga xam ne mën naa juum par exemple mu ne loolu bu mu ne bu fekkee loolu dong nga des ci say mbir maanaam yàlla yóbbu la ci kaso xam nga kaso moom dootoo wax bay def erreur mu ne bu fekkee yàlla dafa denc Sonko ngir denc projet bi ba dara ko yàqati mm-hmm. su ma ñaanee mu génne ko fare mu yàqoo ci biti nag ma ne ko bàyyi ko bu ko ñaanaat euh, parce que li ma mën a misaal rek mooy par exemple problème mu Mambay ñaa mm-hmm. bu fekkoon Sonko nekk ci prison bi du ko wax mm-hmm. mën naa am fi ne yeneen diis waroon naa am ay njuumte wala ay wax yoo xam ne maanaam mën na laa andil ab gàllankoor waaye denc giñ ko denc moom ak jomaay xëy na jomaay kat mën naa am bu génnoon wax wala mu def ay faayam feeñ wala lam lu mu war a wax mu wax ko wala mu juum njuumtal doomu aadama waaye suñ ñu ko téyelee foofu ah ñun ñu nekk ci bitti danañ ko fal buñ ko falee bu soobee yàlla lépp lu naroon a yàq mbir mi rek eh, kii na moo tax daanaka mu génn nit nag du nekk ci kaso bi nga naan mu génn ma bañ mu génn ndax kon soxnaa mi moom danañ ma mere wala dooma mi waaye ñàkk gi moom amul leen lu mu ñuy wàññi ñun suñ ko defee nag moo gën ci Sénégal mais su génnul ñu battre campagne gagné élection yi dem taxaw buntu Cap Manuel mu tijji prison bi génn kenn du ko téye loolu mooy ñàkk génn bi yëpp génn ak ñàkk génn moo yam te ñun ñàkk a génn sax moo gën politiquement ci ñun ñun hmm. waaw Sonko bu nekkee ci prison bi Diomaye nekk ci prison bi ak détenu politique yi élection yi référendum la doo élection présidentielle mais dañuy wate pour génne détenu politique yi hmm? waaw yow xam nga loolu journaliste nga junni doomu aadama boo leen tëjee doomu aadama ju ne ci kër la génne am am ñu mbokkal place am ñu mbokkal marché am ñu mbokkal bureau bu ñuy liggéey ñooñu ñaata doomu aadama bu ne ñaata nit lay laal nga jàpp ci junni ñaari junni doomu aadama tëj leen prison dem élection mbokki ñooñu ñoo lay daaneel kon neexul ci dégg-dégg waaye neexul dégg parce que candidat baa nga kaso moom Sénégal la ci gën a perte mais su dee politique par politique Ousmane euh, Diomaye fay bañ a génn moo xaw a gën sax génn. moo xaw waaw. mais foofu euh, ñu bëri dañuy wax ne nag déjà euh, le fait que des ci prison bi. Mm-hmm. Euh, dañuy violer lii di lii di yoon. Ah, bu leen neexee violer yoon a ko fa bàyyi ba tey post Facebook ñu téye la fi atum kaso. ah violer a ko fa bàyyi di defut dara Ousmane Sonko violer yoon a ko tëdd fa mu nekk di politique ak nit di ko saaga muy fayu nga koy xas muy fayu nga koy wax muy fayu nga dem ba mu neex la nga ne ko deux mille vingt et deux mille vingt deux deux mille vingt trois maanaam ñetti at yi li nga ci daa wax lépp daal léegi mujj naa ko def infraction di la ko toppaat mas ngaa gis loolu ci àdduna ah waaw loolu lañ def Sonko loolu la ko bàyyi ci kaso bi di maanaam deux mille vingt et un déclaration bu mu def rek mhm. moo xam da doon tontu moo xam na koy waxee xamoo ko moo xam moom daal lu mu mas a def ci déclaration boole naa ko maam daal léegi def naa lépp benn infraction di la ko toppee loolu la Sonko def ci kaso bi kon kon lu fait kon mbiri mbiri yéexoon trop pour génne liste bi looloo ko waraloon. waaw liste bi nag ñi def ñi def kii dafa bari maanaam ñi def ay recours moo bari recours bu nekk ànd ak ay explication donc loolu moo tax lépp naa ne euh, parce que recours yi moom dafa bari woon waaw boo xoolee ñoom coon ñaak ñëpp recours te kenn ku nekk conseil bi dafa am droit pour taper wax la ne la lii ak lii moo tax ma ma la muy recours ñoom Amadou Ba beeg recours Cheikh jaan Dieye beeg ñëpp donc loolu moo taxoon maanaam sortie bi yeex voilà. kon kon li tax sortie bi yeex kon xam nañ ko mais euh, fi mu toll nii euh, li ci topp mooy étape bi jëm ci wàllu campagne. Mhm. Bassirou nekk en prison donc Pastef tamit nuñ ko war a defee ak itam temps d'antenne am bu jotee noo xalaatee ne stratégiquement parlant buñ ko defee woon moo nekk li waaw Babacar Diagne de dégg naa seetaanu ma ko direct sax mais dégg naa def na interview ak euh, Seneweb mu wax ne ku nekk prison duñ la jox kàddu xaw ma nan lañ ko nan la defee parce que loolu senegal xamul loolu Sénégal xamul candidat bu nekk ci prison donc am nañ ko tey ah ñu daal ay ay ay ay ay kii moom RTS moom am fa temps d'antenne ak ñàkk ko faa am kooku faalul kenn dafa am ay tradition yuñ dond rek mooy jamono bi nga xam ne benn télé moo amoon Sénégal ku génnul télé doo génn télé mais bu ñu ñu xañee temps d'antenne euh, wal fa kii RTS mais ñu ñëw Sénégal 7 am suñ temps d'antenne di wax ñii seetaan Sénégal 7 seetaan nañu RTS. fii moom këruñ waaw ba ko Senghor ñoom di def mooy ma moom mu ngi mel ne ab dëkk nga yor fa benn groupe comme groupe bu Saneex bi ku waxut nga débrasé ko loolu moom dëkk bi léegi ñëpp am courant lu ñu doyee groupe tradition la nii rek nit ñi di dem RTS di wax mais RTS lu fa nekk. ba message yi nga mën a wax ci pass mais yu Sonko kañ la gëj a jokki télé Sénégal di wax pass Facebook am lay réglé lépp ah Macky Sall tëj na RTS ba ne Sonko moom du fi taxaw fekk ndekete Facebook bi ma ngay toj te yëgu ko